chef de l'État waxee sénégalais yëpp war nañu jóg doon benn lu ñu man ak lu ñu mënul ñu def ko ngir mën a xeex li nga xamante ni mooy feebar bi di coronavirus fii ci commune Mbacké jël nañu lu tollu fukki million ak juróom pour def ko ci li nga xamante ni mooy plan de riposte bi nga xamante ni euh, le comité de crise départementale technique ci loolu it jël nañu aussi enveloppe un million jàppale ko aussi communauté de crise boobu en espèce matériel bi ñu fi daje it gis ngeen ko muy ay lave-mains muy ay satala muy diw muy eau de javel muy kotol muy ay cache muy ceeb muy saabu muy alcogel ak yu yëpp dañ ko ak yeneen yi nga xamante limuma ko ak ay gants dañ ko def pour jàppale ko askan bi pour mu mën a agsi ci askan wi nag dañu préférer liggéey ci ak comité de crise boobu pour que ensemble ñu mën a cibler ñi nga xam ne ñoo ko soxla ñu jox leen di wax na it sëriñ daara yi ñetti xeeti daara moo am fii ci Mbàkke am na daara ay internat lañu xale yi dañuy nekk ci biir école bi nga xamante ñoom duñu génn ñooñu amuñu problème daara yi nga xam xale yi dañu doon jàngi di ñibbi ñooñu it amuñu problème mais ñi am problème mooy sëriñ daara bi nga xam dañu ko jox ay xale xale yooyu di war di jàng di yalwaan ngir dunde ñooñu nag recensé nañ ci 150 yoo xamante ni danañ leen jox ceeb danañ leen jox euh, diw danañ leen jox eau de javel danañ leen jox ay lave-mains danañ jox ay satala wante aussi dañ leen jox alcogel li waral ceeb bi ak diw gi pour sëriñ daara bi am loo xam ne dana ko mën a toggee yore ko xale yi au moins fekk un mois ci loolu it maa ngi lancé beneen appel ci population sénégalaise bi yëpp rawatina sama mbokki maire yëpp kenn ku ci nekk lu mën na ko def ci xeex bi parce que sur la bi ci des it maa ngi ñaan bépp daara quartier ba mu ne kër ya leen wër nañ wut boolu daara kër gu nekk nay tibb bool di bu ca daara ja pour jàppale sëriñ daara yi ndax bu sëriñ daara bi amul moyen yoo xamante ni dana ko toggee pour jox ko xale yi ñu mën a lekk mën a toog di obligé bàyyi xale yi ñu génn kon nag quartier bu ci nekk daara ja fa ne kër ya ko wër ku ci nekk na def action de solidarité mooy di tibb bool di yóbbu ci daara yi kon ñu ngi félicité bu baax mboolem ñi yëngu ci xeex bi yëpp muy jeunes yi conseil communal de la jeunesse muy artistes yi muy étudiants yi nga xamante ni jóge nañu ci université yi ñëw pour jàpp ci xeex yi mais aussi di féliciter aussi liggéey bu rafet bi nga xamante ni am ci sensibilisation jóge ci ñi nga xamante ni ñooy les journalistes mais it di wax gàcce ngalaama l'équipe médicale di ko jaar seen kilifa muy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ci engagement bi ñu am ak enthousiasme bi ñu am pour mën a accompagner malade faj leen wante aussi sensibiliser askan wi wante aussi ñu ngi félicité di di di euh, di di di di kañ aussi sunu soldats yi nga xamante ni ñoom it jóg nañu pour ñu en appoint ci seen ay autorité sanitaire pour jàpp leen kon monsieur le préfet lii. mën nañ ne mairie de def na benn étape te mi ngi déglu rek o besoin ñu ngi leen di déglu noo xamante ni buñ ko defee rek mu baax ñun pare nañu pour defaat ko pour xeex bi gën a mën a dëgër gën a mën a taxaw